tooy ñetti jinne laa génne ci moom. Hmm. ba ñëw jébbalu dégg ngeen dégg lan laa leen wax léegi beneen jinne beneen jinne naka la jommi ngeen wala jommi wala li ma wax dëgg la wala dëgg ah waaw ah, ngeen di dem ci ay tuura xambal na ko foog mu lijjanti ko ha kaay balaa am loos bi ci ndam kaay kaay gaawal tey balaa muy ndam loos tey la xëcc ko noonu balaa muy ndam loos waaw ndànk waaw loos bi waaw boobu Hey, Junior! Thierno Moule Sow Thierno Moule Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow kisisaya sama jinne xàmmee moo naan gëmul moom moo may dóor tàccu leen loolu xàmmee moo takk leen takk leen Pape Demba nee mu ci yeewu leen takk leen yeewu leen takk leen takk leen yeewu leen takk leen takk leen takk leen xam ngeen ana Sidi Lamine Niass jinn Sidi Lamine Niass Sidi Lamine Niass Sidi Lamine Niass Sidi Lamine Niass Sidi Lamine Niass Sidi Lamine Niass jinn jinn xam nga jinne boobu laa jàppoon ci moom Sidi Lamine Niass Sidi Lamine Niass yeew ko jinne Sidi Lamine Niass Sidi Lamine Niass Sidi Lamine Niass jinn jinne boobu laa njëkkoon génne ci moom laa yëg loolu gis nga Sidi Lamine Niass Sidi Lamine Niass yàlla na ko yàlla yërëm xaar aljanna Sidi Lamine Niass yàlla na ko yàlla yërëm xaar aljanna yàlla na ko yàlla yaram xaaral aljana Sidi Lamine Niass jinne bu ma tijjee woon Sidi Lamine Niass moo génnoon su ndaw si beneen jinne moo fee yàlla Sidi Lamine Niass Sidi Lamine Niass Sidi Lamine Niass Sidi Lamine Niass Sidi Lamine Niass Sidi Lamine Niass Sidi nangu nangu jën Sidi Lamine Niass Sidi Lamine Niass Sidi Lamine Niass Sidi Lamine Niass jën jën xamu nangu nangu xamee nangem yow yow takk leen ko jëndee xoj xoj xoj xoj xoj xoj xoj xoj leen ko jëndee xoj xoj xoj xoj xoj xoj xoj xoj Sidi Lamine Niass xoj xoj xoj jën xoj xoj xoj leen ko xoj xoj xoj xoj xoj jën xoj xoj xoj leen ko xoj leen ko xoj leen ko tee ko tee xoj xoj xoj jën xoj xoj xoj xoj xoj jën jën jën jën Sidi Lamine Niass Sidi Lamine Niass jën Nabi Nabi Nure tong nabi nure tong nabi nure nure te surkin surkin kis kas koy kas tong sans semerus top top top sans semerus sans semerus sans semerus sans semerus jin jin ki desire voilà secret bi dëgg la wóor leen di àll secret bi ak yëpp Thierno Moule Sow wóor leen di àll secret bi ak Thierno Moule Sow Alpha yi jaay Alpha yi baati Alpha yi jaay Alpha yi baati kurjinna sojinna uurjinna koroyanna nabiyanna nabiyura burite surjinna sursurjinna kisi gasi kolgasi samsi semurusi samsi semurusi samsi semurusi samsi semurusi bisaya bana ya saya wulin ti Allah sigin ti Allah wulin ti Allah sigin ti Allah hul hul ya sanadu hul hul ya sanadu hul hul ya sanadu alfanje alfayin batin alfanje alfayin batin hada mutum nan yemo yewlen ko takalen loxo yewlen loxo ci man lay bëgg door yewlen yewlen ana armée générale armée générale Thierno Moule Sékou Tidiane Moule Sow armée générale armée générale Djindi ana armée générale douze millions douze mille ñaata la douze mille douze mille milliards Djindi douze mille dix mille milliards Djindi dix mille milliards Djindi armée armée commandant colonel caporal

Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow jël ko Thierno Moule jël kaay jël kanam bi Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow kon gars yi dana utiliser ñetti Thierno Moule day faj. man utiliser naa ko. waaw waaw waaw kooku nee na utiliser na ko nga ne. man utiliser naa ci ñetti Thierno Moule Sow. waaw. ma tëdd gént xar bu ñuul at bu weex. jàkkaarloo man. waaw. kon leer na dina utiliser ñetti Thierno Moule Sow ci seetu Thierno Moule yaa ngi nii ñetti ñetti Thierno Moule ci seetu Thierno Moule waaw dina ñëw kisi saya proya saya sematu sematu sematu alfayi gay alfayi batin kojin sojin kulti koroyen nabiyan seki comment tu t'appelles Réponds-moi, comment tu t'appelles Eh, c'est qui Réponds-moi. réponds-moi. C'est qui C'est qui C'est qui C'est qui Comment tu t'appelles Réponds-moi. bomoa bayo haɓɓe mo jinna yewlen ko ana suma jinnayi yewallen ko yewlen ko takkalen ko jinnayi yewlen ko takkalen haqqe mo nandimo haqqe mo nandimo jinna jinna jinna jinna jinna jinna jinna kidi saya poloya saya wonande allah siginede wonande siginede siginede alfayi alfayi batin sojin na kuɗi koroyan na nabiyan na nabiye nuraje sojin na so so yau takala yau yau sidi lamin yas sidi lamin yas Jina, Sidi Lamine Niass, Sidi Lamine Niass, Jina, Jina, Jina, Sidi Lamine Niass. Yawal ba Sidi Lamine Niass, Sidi Lamine Niass, Sidi Lamine Niass. eh donanto trom jin donanto trom trom donanto trom attaque donanto trom Attaque Donaldo Trump, Donaldo Trump, Trump. Attaque Donaldo Trump, President America Trump, Malaysian Trump, Trump, Trump, Trump, Donaldo Trump, Donaldo Trump, Trump, Trump, Trump, Donaldo Trump, President Tanzania today, Donaldo Trump. Trump, Trump, attaque, Trump, Donaldo, Trump, Jim, Jim, Jim, Jacasset, Trump, Trump, Jacasset, Trump, Jacasset, Trump. jaxase Trump Donald Trump Donald Trump président États-Unis jaxase jaxase Trump Trump Donald Trump Obama Obama président Obama États-Unis Barack Obama Obama Jin Jin Obama Obama Obama Jin Jin attaqué Jin Obama Obama Obama Obama Jin Jin Jin Jin Jin Jin Jin Jin boolewaa saaya wonante allah e saginande allah wonante allah e saginande allah ceerno mule so wonante allah e saginande allah ceerno mule so hoɗum allah samadu alfayu jeyi alfayu batini alfayu jeyi alfayu batini ko jinna sojinna ɓoldi koro yanna nabi yanna nabi dure dureyte sojinna so sojinna kiisi gasa koye gasi kiisi gasa koye gasi samsi samadu Samsi sama ruusi Samsi sama ruusi Samsi sama ruusi Samsi sama ruusi jën jën jën jën jën jën jën jën Samsi sama ruusi Samsi sama ruusi jën jën jën Samsi sama ruusi Samsi sama ruusi Samsi sama ruusi jën jën jën kon xam ngeen ne ñetti ceerno mu la day faj aajo Thierno mu ne Thierno mu ne

Sow Thierno Moule Thierno Moule Sow Thierno Moule Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Ceerno Moule Sow Sunjata Kayta Ceerno Moule Sow Sunjata Kayta Ceerno Moule Sow jërëjëf kiti saya bolo ya saya wulunde Allah sikirinde Allah wulunde Allah sikirinde Allah wulunde Allah sikirinde Allah Ceerno Moule Sow wulunde Allah alfahari je alfahari batin alfahari je alfahari batin ko jeni sojeji uwoji koroyanna nabiyanna nabiyullah soji so soji kisi kas kolgas zanti seworoji zanti seworoji zanti seworoji yeewlew leen yeewlew leen yeewlew leen yeewlew leen yeewu takk leen xàqee leen takk leen ba ñu dëgër ngeen yeewu leen suñu jinne douze douze mille milliards jinne douze mille milliards jinne dix mille milliards takk leen takk leen takk leen dix mille milliards naturel dafa jëm ba du julli nañ walla ah. waaw na taxaw ni na taxaw nii. jàkka ji julli nañ na. kiyama wala so kulu allah samad kiyama wala so kulu allah samad kiyama wala so kulu allah samad kiyama wala so kulu allah samad kiyama wala so kiyama wala so jina jina jina jina jina kiyama wala so kiyama wala so kiyama wala so kiyama wala so kiyama wala so jina jina jina jina jina kiyama wala so

Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow ma tàggu na jàmbaar bi waaye Thierno Moule Sow ki di zaaya سجن الله ولد على سجن الله والله سنته الفان جاي الفان باجي الفان جاي الفان باجي كوشي سو سو سو سو كورونا نبي نبي نور دوريت سوجي سوجي kisi casa, koi kasi, samsi, samusi, samsi. sëbëb aussi. saa si sëbëb aussi. waa kër gi la ñuy wax. Jàngal ma jàngal ma

Tear away the soul. Tear away the soul. Tear away the soul. Tear away the soul. Tear away the soul. Tear away the soul. Tear away the soul. Tear away the soul. Tear away the soul. Tear away the soul. Tear away the soul. Tear away the soul. Tear away the soul. Tear away the soul. Tear away the soul. kon leer na leen. leer na leen ca mu ne soog sama day jàpp jënde. sama tur kese lay jàpp jënde. leer na wala leer na. doo ñaan te doo seen morom. doo ñoom duñu yow. ngeen ñoom duñu yow. ngeen ñoom te duñu yow. ñoom. te duñu yow. léegi bàyyi naa yaay xalifa général. ci ne bu ñu wax mu ne ma Thierno mu tontu. mu ne ma tuddee ma sa bopp tuddee ma Thierno Moule Sow sëtu Soundiata Keita. kon léegi dootuma tontu benn sëriñ. bu tontooti kenn. Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow la jóg kiti saaya palaya saaya huliti almi sikiri hulukula sabatu alfa yi jey alfa yi batin alfa yi jey alfa yi batin kujina sojinda koroyanna nabiyanna nabi dure durete sojinda suusu jinna kiisi kaasa koye kaasi saamsi samuruusi jinna ceerno muleso ceerno muleso ceerno muleso ceerno muleso ceerno muleso jinna jinna kiti saaya boleya saaya wulinde allah e saginande allah ceerno muleso c'est qui comment tu t'appelles Hello for moi Reprends-moi. Reprends-moi. C'est qui yeewu leen ko ci ne takk leen loxo yi téye leen loxo yi takk leen loxo yi bu ma laal takk leen loxo yi téye leen loxo yi. dix mille milliards armée.

yaay buuru ci ne buuru ci ne yaay buuru ci ne binti yaa ne koni caamoo ne koni damaka binti yaa ne koni caamoo ne koni damaka binti yaa ne koni caamoo ne koni damaka binti yaa ne koni caamoo ne koni damaka binti yaa ne koni caamoo ne koni damaka pitiyale kun chamole kun tamaka pitiyale kun chamole kun tamaka pitiyale kun chamole kun tamaka pitiyale kun chamole kun tamaka tamaka tamaka ngay sew affaire bi yow la yow la du ma tontu léegi sama jëfay tontu du ma tontu sama jëfay tontu du ma tontu sama jëfay tontu du ma tontu sama jëfay tontu nu ma neex laa jàpp yëpp bokk ci ah def show ah wala yaa saaya wonande allah sakinande allah wonande allah e sakinande allah holo allah samado alfayi jeyre alfayi batino alfayi jeyre alfayi batino kotoa sojina wude koro yanna nabi yanna nabi ɗurete sojina so sojina je attrape les djinns. Faut bien écouter, hein. Qu'est-ce que François may woowe waaw asi saya pole ya saya wulandi allah siginande allahu hululla samadun ceerlamune so hululla samadun ceerlamune so hulu allah samadun ceerlamune so dureete soo jija soo soo jija màggal na loolu jina baa ngi màggal màggal leen ceerno jina baa koy màggal màggal leen ceerno màggal leen ceerno màggal leen ceerno jina baa koy màggal alfaayu jeey alfaayu baatin ceerno jina soo alfaayu jeey alfaayu baatin ceerno alfaayu jeey alfaayu baatin ceerno alfaayu jeey alfaayu baatin ceerno منصور الفا الجاي الفا يمات كيرو منصور كل الله صمد كيرو منصور كل الله صمد كل الله صمد كل الله صمد كيرو منصور كل الله صمد كيرو منصور الفا الجاي الفا يمات كيرو الفا الجاي الفا يمات كيرو منصور كل الله faw faw rufunange faw faw rufunange amar yow hirnange faw faw rufunange faw faw rufunange amar yow hirnange inna allaha anna allaha bilibadi bashira bashira bashira bashira jin jin jin monokobi tolotege talatege monokobi tolotege talatege monokobi tolotege talatege monokobi tolotege talatege monokobi tolotege Allah kanta Allah kanta annabi kanta Allah kanta annabi kanta leydi didi to didi didi to goɗɗo faw fawɗo fof nange faw fawɗo fof nange faw fawɗo fof nange faw fawɗo fof nange faw fawɗo fof nange amal yal amal yal inna allaha inna allaha inna allaha bibati bibati bibati bibati bibati bibati wonande allah e satinande allah jomiraɗo wonande allah e satinande allah jomiraɗo wonande allah e satinande allah jomiraɗo wonande allah e satinande allah jomiraɗo wonande allah e satinande allah jomiraɗo wonande allah e satinande allah kijiɗaɗo wayla boko wonande allah e satinande allah jomiraɗo wonande allah e satinande allah jomiraɗo ceerno yusuf ceerno yusuf ceerno yusuf wonande allah e satinande xajal leen ko bàyyi leen ko xajal leen ko bàyyi leen ko xajal leen ko bàyyi leen ko kii si bàyyi ko mu dem kii si kaasa koy kaasa kii si kaasa samsi samsi samsi

Affaire bi yow la Somebody man ko ye. So. Thank you. nabiyana nabiyana soji so soji his casa kai casa samsi samsi samsi samsi kitisaya kuma ta taka Sabrina Sabrina Duk suna bayan jina Sabrina Wow Yau langa ah, Sabrina Langa Sabrina. Yo, là, Toi, c'est quoi Je regarde seulement. Yo, là, yow ban xeet la kii beneen jind la. jinne bi ma jàppoon ci moom. moom moo moom laa toll si la bi nees. beneen jind la. toi c'est quoi. xaaral ku àti eku ayọ̀ lẹ́nu ku àṣà ṣe ku à dẹkọ wọn sì zọbọtọ ça c'est quoi. jaan jaan la la. tigre tigre. waaw ah, kon léegi nag sabu danaa toogal waaye ñu ngi jënd waaw ah, waaw gis la wax. nga ne. سبيل الله تعلمون السواء قل الله صمد الفائدة Touche-moi, tu vas voir. Touche-moi. Touche-moi. Touche-moi. Essaye de me toucher. Toucher comment

alfaayu jeex alfaayu maati góor jigéen sooji bi ko wonde hono ma yalla sooji su sooji kiisi kaasa ki amana je bonno kiisi kaasa koye kaasi samse samarusi samse samarusi jenna jenna jenna jenna jenna jenna ni moy je bonno naati ceerno mo lay leer na li ma leen waxoon sànq ah, ah. waaw waaw ndeysaan macha allah bu jébbalu na xaaral ma liggéeyati ñeneen kiti sa boole ah, sa eh, comment tu t'appelles yow la kan yow la kan foog mu sonal ko mu wax ah ah nga doon dama foog nga wax. c'est quoi yow la kan. sama yaay. yow la kan. Kiti saya, saya follow ya saya. Coupé. Yeah. Hey, réponds-moi. Yamu. Kiti saya, follow ya saya. ولد الله سيدنا الله ولد الله سبحانه الفاري جاي الفاري باتن كل جنة سوجي كرويانا نبيانا مريتة سوجي Gaza, koy gaasi Samsun sınır musi Samsun sınır musi Gidi zaya Polaya zaya Wannan da Allah shi gidan da Allah Ulullah sınır Alfahim Alfahim batin Kurdi Sojin Udi Koroyan Nabiyan Hakkay mojinna Nani mojinna Yewle Takkalin kukin Yewle Takkalin kukin Takkalin kukin nangi haɓɓe nangi mijini kiti saya boloya saya wulde allah saginande allah hulu allah samado alpha ndiaye alpha yo batid mixib alpha ndiaye alpha yo batid kurjid sojinna uudi koroyana nabiyana nabi nurede kinshi class my class samsi samsi samsi samsi samsi jiba jiba kacho pizza ya bolo ya wannan da Allah ya shige da Allah kullu Allah samadu an fa yi an fa yi mati kurjin sojin ya kuta koro yalla nabi yalla nabi dure dure soji so soji kisi kasa koi kasa samsa sama musu d'abord c'est qui c'est qui Sabrina Sabrina toi tu es quoi moi je ne comprends pas ça c'est moi ça c'est quoi lii la la ça c'est quoi Sec, tigre, c'est comme ça. Mm -hmm. Ça, mm -hmm. ça. Mm -hmm. Tu vis ça Ça c'est quoi C'est ça Mon nom est sec. Depuis quand tu es rentré cette nuit-là Depuis quand Samedi, samedi, samedi. samedi. Ah, ah. rentré wu. Ah, teel ci rentré wu. ah là-bas. où. là-bas à Rufisque. à Rufisque. quel côté de Rufisque. sant yàlla. sant yàlla. lu tax nga dugg ko. ah dafa rafet. elle était trop belle. ah yow fan nga ko duggee. sant yàlla. lu tax nga dugg ko. naka. waaw loolu la moom. ah lan laa leen wax. Mm-hmm. kii kan la kii nga kii nga jàppoon ci moom la wala. déedéet keneen keneen la moom. sant sant yàlla. kii nga jàppoon ci moom fan la ko duggee woon France. waaw ci école bi ah. Mhm, mhm. waaw ci conteneur yi xaw ma. waaw waaw c'est ça loolu la. lu tax nga dugg. ah elle est trop belle elle était belle. mais c'est pas pourquoi. toi tu es jinne. elle est belle. Mhm. moo tax nga dugg ko. mais lu tax nga dugg ko. dafa rafet. Mhm. léegi yow loo bëgg ci moom. ah je veux tuer tout le monde. ah. ah. je veux tuer. waaw ñëpp la bëgg a rey. comme li mu doon def wax si démb la tey rek. bëgg a rey. je veux tuer. ñëpp bëgg a rey. Ah, ah. gis ngeen dee yu bëri yi li may wax ak nii. Mhm. tey soxna si mënul rey. picc bay rey. Mhm. dégg nga gis ngeen jinne bi nee na ñëpp laay rey. Mhm. léegi nag kii dégg naa seen frère dafa am lu mu fa bëggoon rey n'est-ce ñu bëri sax. ah mhm. ñu bëri la bëggoon rey. tay tey bu fa reyoon ñoom ñëpp jinne bi day dem léegi ñu ne kii moo rey ñun. te lu fekk lu moom. dégg ngeen jinne bu ko dugg nee san sant la ko dugg xaar yàlla nee na dafa rafet sant yàlla xaw ma la ko moo tax dee ñu bëri wax naa ko ci day ñoo koy def. ah, ah, ah. waaw ci sama mariage wu sœur bi taxaw ni doomam fa la ko duggee nee na si kii bi refuse quoi tiitoon nañ ci lool nag de tiitoon nañ ci lool waaye tàgg woon nañu nag ma ne tiitoon nañ ci lool ñun dañ doon def mariage samedi man maa doon maye sama doom waaye même man sax sama yaram sax da doon daw si mariage mhm. boo xoolee mariage bi sax di nga xam ne am na dafa daal dafa rax torop mhm. parce que xale yi dañu solo euh, solee woon seen yére yi ak seen pose xef yi da ngay xam ne lii rax na mhm. man sama yaram bi dafa dafa dee euh, si suba ba guddi sama yaram dafa dee xamoon naa ne dina rax parce que boo xoolee xew bi da nga xam ne xew bi am na ñu si bokkul ñu si ñëw. wax dëgg yàlla te bu mu yeewoo tamit yaram bi dafa fasu dafa takku. benn côté bi yëpp benn côté bi yëpp moo bañ. suñu doom yi daal sonn nañ torop torop surtout ñu fa ñu dëkk sax nit suñu jëm bopp dañoo sonn ak jinne yi sonn nañ torop. waaye ah, yàlla baax na Thierno Moule mi ngi fi. suñu kër yëpp léegi dañuy wax ñetti yoon ceer Thierno Moule Sow. ba sama rakk ji day wax Thierno Moule Sow ñu koy reetaan waaye tamit loolu firndeel na euh, yëf yi Thierno Moule Sow ñetti yoon dëgg la mm-hmm. yal na la fi yàlla bàyyi euh, yaa ngi fajal si doom yi yal fi yàlla bàyyi mm-hmm. tey nga yàgg fi lool lool a Thierno Moule Sow kontaan nañ si ban côté ban côté ngeen dëkk ba mu foofu jinne sonal euh, fas tëngeej fas conteneur mm-hmm. si kii bi mais dañu dëkk si àll bi dañu dëkk ci àll bi suñuy doom bu ñuy génn sax dañuy tiit Mm-hmm. dañuy tiit torop sax ñu ngi ñaan yàlla rek nga ñëw tëngee ngir yàlla def fa tamit benn kii bu ndaw rek ndax xale yëpp bon manifesté wu yëngu sonn nañ daal Thierno Moule sonn nañ torop wax dëgg yàlla mm-hmm. Mm-hmm. waaw Euh, ñoo ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi di leen nuyu bu baax ñëpp ñu ngi seetaan di jéggalu ñëpp. waaw kii xam na ngeen ko ci internet bi. mooy soxna si jàppoon jinne bu jinne bu dugg France Paris. gis am na benn jinne bu ko dugg ci ci rakko rakko yaay wala mago yaay ci mago yaay nee na dafa amoon xew mais moom ci boppam yaram dafa ndax dafa am lu rax ci xew. parce que jinne duggoon na ci léegi bu ñu waxee si xew. boog sa yaram daw. dëgg kii. dafa ne day rey ñi ñëpp dégg ngeen loolu la wax du moom de jinne bi ko dugg la tey tey maar may taali bi rey ay de ñu ne moom dafa soxor di lay violé fekk du moom na jóg yi rek baax a dafa xat ñi ñi waaw jinne bi day bëri waaw yàlla na li may def nation bi laay dundal nation bi laay dimbali. tey président bi moo nekk père de nation. waaye bu ma neexee mun naa ne man it père de la. ndax ku jàkka jaaxle moom sama kër ma dimbali la. tey defe naa ne kii tey bu ñu génnewul ci bi ci moom la mën a rey. tey bu rey ay nit yu bëri dañ koy jàpp te ko ci kaso ba a aw ba niram. ñeneen ñi dee ñeneen ñi dee kon li ñuy wax la ñu jox fu yaatu. li jox sëriñ si. ma ne la ñu jox ñoo ngi daggal seen ci ay suuf ñu ñoo ngi fii ñu gën a yelloo loolu war nañu jox daggal ñu fu rëy ñu def fa centre mën a dimbali doomu aadama yi ndax fii dafa xat c'est important jinne yi dañoo bari ci dëkk bi yàq nañ comportement yi yàq nañ nit ñi yàq nañ doomu aadama yi rey bi dafa bari dee bi dafa bari dof yi dañoo bari lépp ci ndey kon lii président war na ci mën a taxaw bu dee sénégalais yi dafi a gëstu ku mel ni Thierno Moule Sow soxla wu ma un franc mais nañu jox terrain bu yaatu ñu tabaxal ñu ko ñu mën ci di dimbali nit ñi di faj nit ñi comme ni ñuy dimbalee gars yi ci hôpital yeeg lañu ñaata nit laay laay dimbali ñun ñu fure nañu jóge ci àdduna bi kon loolu message boobu c'est normal ma lancé ko ci Pape Sidi waaw kon gis ngeen ndeysaan beneen jinne mu duggaat ci da ngay gis fii damay jàpp benn génne ci moom fukki génne ci moom ñaar ah, ah, fukki jinne ak benn ndeysaan euh, kii nu ko waxati suñu jigéen suñu doom awa awa kayta ndeysaan ñoo bu baax a baax moom tamit gis nga jinne i bëri naa génne ci moom génne naa ci moom prix de neuf xaw jinne ah moo ngi fi ndeysaan ak bëgg trop moo fi na ñëw na egg si ndeysaan gis nga loolu macha allah gis nga maa nuyu moo ngi fi kon moom dina gudd fan ci kattan borom bi waaw waaw lii foog ma lancer message bi pour nit yi xam loolu Thierno Moule war nañ ko taxawu mu am fu war naa am fu yaatu nag war naa ba waaw war naa ko sonn ay 15 jours 10 laay gis te man bëgguma loolu bëgg naa lu mu dee dee dee 500 500 mètres carré wala 1000 mètres mm-hmm. su ko defee dinaa ci mën a tabax fu yaatu fu ma liggéeyee tabaxal ci jinne yi tabaxal ci gaay yi ñëw duma seet si. waaw loolu moom lancé naa appel boobu képp ko gis ku ci na ci jéem dara. waaw nañu am fu yaatu daal ci kàttan yàlla. loolu loolu message boobu moom lancé naa appel. Mm-hmm. waaw. soxna Awa Kayta ngi noonu baax te jinne day saan <laughs> moom it jinne day ko bëgg saa jinne ah, ah, waaw jinne waaw mun nga taxaw seetaan mbaar indaale woo keneen kiti saaya gis jinne bee ñëwewuma nee naa bàyyi li wax

waɗande allah sajunande allahu ceerno mule sow ceerno mule sow ceerno mule sow ceerno mule sow ceerno mule sow ceerno mule sow ceerno mule sow ceerno mule sow ceerno mule sow ceerno mule sow ceerno mule sow ceerno mule sow kidisa instant ma koy xëcc. ndeysaan gis nga jinne bi nekk na taalibe moom may liggéeyal gis ngeen gis ngeen yéen sama taalibe yéen sama taalibe gis ngeen jinne baa ngi liggéey yow la kan yow la kan wax ma yow lan nga. ji. d'accord sinon ma wax Kidisa Aya de. ji ji. Kidisa Aya. tey mujj na nekk sama taalibe sekk gi mujj na jébbalu gis ngeen xam nga ne lii rafet na ah gis nga jinne bi nekk ci kii mujj na jébbalu Mataara gis nga loolu. waaw. waaw ba ñuy takk yaayam sama kanam. magam sama xarit la. moom bay ba mu tudd woon sax. dëgg la man maa ko yar. dëgg la bokk la. dëgg la maa la koy doog a wax tey. dëgg la waaw. Kizza Bala Yaasa. Cee cee woon. waaw waaw alpha yu baati alpha yu baati alpha yu baati alpha yu baati <laughs>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 sëriñ bi ah jàppante nañ ci ne ñoom ñaar ñu fay nañ ah. kii kay moom du dem dañ koo jàpp bu yàgg bàyyi ko ñu ah ji nee ngi jàpp ma dugg ci nekk tey cee na mu la ko def. Cause it's all. Six man lii mooy tàllal gaay yàgg bi fii gaay la yàgg jinne jàpp ci ne bii mooy tax ñebe bi tànn loolu c'est important ma la sama lancer message boobu yàgg bi ngeen fi yàgg du man de waaw ñi jàpp ci ne moo tax gaay yi di fi yàgg loolu tamit nga xam loolu aussi waaw ku fi yàgg xam ne jinne yi kiti saara bologa saara wonande allah sefine allah ceerno rasul wonande allah e sefirinde allah bisma nene ko ko laalal garab ça c'est a médicament hein moy vite fait moy vite fait bien fait bien fait ah, gars yi tuddee nañ ko vite fait bien fait maa ko tuddee loolu waaw kooku dañ koy dañ waaw vite fait yaa ngi noonu vite fait. bien fait vite fait. vite fait. bien fait. vite fait. bien fait. vite fait. kii nañ ko def kii nañ ko def importé. ñu koy jaay ci adduna bi dina dem dina Chine dina dem Japon dina dem New York Canada kii dinañ ko importé yóbbu ko ci adduna bi si dimbali adduna bi adduna jinne ñemewuñu kii dëmb yi ñemewuñ ko cat ñemewu ko làmmiñ ñemewu ko lu bon ñemewu ko vite fait Bien vite fait. Bien fait. Vite fait. Bien fait. Vite fait. Bien fait. Djinn. Djinn. Vite fait. Bien fait. Djinn. tàcc na loolu waay. amul ma ne gars vite fait. Bien fait. Djinn. ah ah ah ah. ah. jëfay tontu gaa yi nee leen jëfay tontu jëfay tontu ceeb mu ne bul tontu jinne moom ne ceeb mu ne bul tontu kon jëfay tontu Vite fait Bien fait, Djiné Vite fait Bien fait, Djiné Vite fait Vite fait Vite fait Kay Thierno Moulay saa bi ñu bëri jënd nañ ñu bëri ñoo ngi def li mu mën ak li mu mën ngir Thierno Moulay waaw waaw ndeysaan gis nga moom mu gën a jébbalu segg bi mu gën a jébbalu ba moom may liggéeyal kon lii day wane ne rek man jinne bu ma jàpp daf may liggéeyal hmm, moom instant bokk na ci taalibe yi waaw loolu yàlla jamono ji yàlla moo ma wàccee fii lii du man yàlla la c'est pas moi c'est Dieu c'est pas moi c'est Dieu tout c'est Dieu yàlla képp ku ànd ak yàlla doo daal waaw waaw waaw léegi nag moom papaam war nañ ko gis ah kii papa kii war naa ko gis paa boobu waaw war naa ko gis pour ñu wax ak ki waaw waaw. jiitu. Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow kiti saya bule ya saya wonen sik sik sik wonen ta Allah sik sik sik Allah kul Allah Thierno Moule Sow ko ga rek sa waxo mo yeb ko ko kul Allah sabab Alfa

la dal garab bi dama la koy sotti de. yow lan nga commencé tàppe yow lan nga. aha xam nga ne lii daf ko war a daal. vite fait. bien fait daf ko war a daal kay. jinn waaw vite fait. soo waxul man sama yoon nekku si ah. yow tuuti yow lan nga. réponds-moi. an kaa hundu. kaa góor wala kaa deb. kaa góor ko kan mooy papam yaa ngi dégg lool dafay dawal kan nga àndal jigéen nga àndal wala góor ah? ah góor nga àndal wala jigéen la ki ki jigéen ah kan mooy wax góor la laa waxal ni jigéen man góor laa waxal yow lan nga ne góor nga wala jigéen ah? la ah góor nga wala jigéen ah góor. man xam naa lan la man yow xam naa la nga tontu góor nga wala góor nga wala jigéen góor nga wala jigéen. góor nga wala jigéen. naa lu ma sax egg na yëkkati ko balaa muy dem yëkkati lan ko. Kuterina,

Allah Ceerno Mansour ka honɗum yo langa yo an ka honɗum yo langa an haalata ko gorko walla ka debbo gonga walla jiguen nde a ɗaga ceerno marade kidisaya بيتي سايا ولو يا سايا ولا تبع الشيخ الله كرم ملسو كل الله سمد الفايتين الفاي باتين الفايتين الفاي باتين كرتنا سوتنا قوت كروينا نبينا نبينا نريد سوجنا سوسوكنا كيسي كاسا كوي كاسا سامسي سمسي سامسي سمسي si taati loolu am maa ma naan maa ko baal naa ko baal mu ngi may kii woon mu ngi tey sama naan ma naa ko baal ah yaakam foog nga wax ma yow lan nga foog mu yaakam kaa xondu balaa ma lay baal d'abord da nga wax yow lan nga ba pare mun la baal kaa góor ko wala kaa def ah ah an kaa xondu maa góor ko nee na fa yëpp moom may xool moom góor la dégg nga olof waxal olof yow lan nga waaw dinaa la baal mais lan nga eh xaar yow lan nga góor nga te jigéen ay jàkkaarloo man yow góor nga yow lan nga ban xeet nga ban xeet nga eh ka xaal pulaar ka góor ko ka xaal pulaar nee na góor a neen xalpulaar nga mais ban xeet nga ban xeet nga kaa xombu xeet kuma haala ban xeet nga aan kaa ginax kaa kaña kaa ulundu kaa hundu kaa hundu ma ah eh. ah ndiyam yaxya nee na ci ndox lay dem mais ka hundu ka humbo ban rabno ban sa rabu alal ban sa rabu kii anda nee na xamul ci ndox lay dem nee ci ndox la dëkk ci ndox wëcc ah nee day nekk ngelaw te hundum kañ ah day dox ci ndox day nekk ngelaw xam nga ni jinne nga kaa jinne eh eh en tant diina ah ah eeyi ɗum woni hon ɗum ka jin mi sakkoma woni ɗum ñanama sakko ko mudam moyla ma ñana ko mudam ma ñanala nga def a andano ko ni maanaam di xoolal ma nee na xamul woon nii waxal wolof waxal wolof. waxal wolof. waxal wolof. waaw. Ah, waaw waaw wolof. ka hundu ka jina. duuɓi jeelu jogiɗa duuɓi jeelu jogiɗa nee na moom màgget la duuɓi jeelu aɗa jogii ɓiɓɓe xam nga ay doom aɗa jogii ɓiɓɓe alaɓeɓe ko waɗi jokkuɗa o debbo nen dafa bëgg jigéen bi lu tax nga topp kii nanga ko bëgg ko waɗi yiɗɗama ko moƴɗo nee na dafa laab biir moo tax mu bëgg mu topp xale bu jigéen bi waxtaan ne alfaji jeeg soji je kuuji koroyanna nabi yanna nabi dure durete soji so soji kiisi kaasi koye kaasi samsi waaw maam Sidi tamit ku bëgg ñu ñëw sa gox boo ñëwee bind lettre joxe ko sa gox bu amee instant mun nañ waxtaan pour ñu ñëw foofu defal lu ma jënd loolu tamit sa important ñu def message boobu dégg nga. Mm-hmm, bu mm-hmm. def da nga message boobu. incha allah parce ndaw si na tënkee mu wax solo. ku bëgg ñu ñëw sa koñ defal lu ma jënd bu sa koñ amee instant. boo jaaree foo war jaar. déplacé wu ak suñu jinne def fa luuma jinne yi ñëw jàpp jinne yi nekk seen koñ yi jinne yi nekk ci xale yi koñ yi xale yu góor yi ci xale yi jigéen yi wàññi jinne yi ci koñ yi loolu tamit bu mu boobu wax fa mu war a jaar bu jaar pour ñu dem loolu tamit incha allah lu bees ah ok amul problème ah. kon ku bëgg luuma jinne rek pour jar mu mën a déplacé ñëw sa koñ ñëw ci stade am na fooy war a jaar boo ko jaaree bu soobee yàlla dinañ ñëw wàññi jinne yi jinne yi nekk ci koñ bi yëpp la jàpp jinne yi nekk ci xale yu jigéen yi xale yu góor yi jinne yi traîne ci tuusee ci mbedd yeeg jinne yi gëmmeloo gaa yi dëmm yi ku bëgg loolu wàññeeku sa gox boo ñëwee jaar fi nga war a jaar ci kàttanu yàlla dinañ dem foofu allah ceerno Moule Sow hul allah sëf alfa jeeɗ alfa yomaati kurji sojoɓe ɗumdi goro yalla nabi yalla nabi wure durete soso sosojinna kiisi gasa koye kaasi saamsi senoruusi saamsi samaruusi saamsi samaruusi saamsi samaruusi kidi saya kër jaamur ñu ne kiti saaya nga ne uum kiti saaya bala yaasa vite fait vite fait bien fait dîner bien fait vite fait bien fait vite fait bien fait vite fait bien fait vite fait bien fait vite fait bien fait dîner bien fait dîner bien fait dîner kiti saaya Follow Isaiah. ولم يكن سيدنا الله قل الله الفاي جاي الفاي باتي كل سوتين زبوت قرو ينا نبي ينا نبي نوره نوره سوتين سوتين كيسي كاسا كوي كاسا سام زوزي سام زوزي سام زوزي ونادى الله سيدنا الله جميع النصر كل الله سر الفا جاي الفا ماتن كل جن سوجي بودي كرويان نبيان نبي نور نور سوجي سوجي كيسي كاسي كوي كاسي سامسي سنوزي سامسي سنوزي سكتت الله ولم تقل سكتت الله قل الله صفته الف ج الف عباده الف ج الف عباده كجد سوفي نقول كوايانا نبيانا نبي الله نبيته سوجينا سوسوجينا كيسي كاسا كوي كاسي آه moom kon xaaral ma yëngal xaaral ma yëngal yëngal kiti saaya hulhuda elfayje elfay batin alfayje elfay batin kursi sojini ɓuuri kuroyin nebiyen nebidure dureke sojini so sojini seki yowlaka sabrina taaliba ceerno mo la léegi nag da nga ñëw jébbal wala loolu nag sama taal bi di ma liggéeyal fan nga dëkk fan nga dëkk foo dëkk fan nga dugg ci xale fan nga nekk ci xale bi yaa ci barab lu tax doo wax yow sabu rëy na lu tax doo wax yow jullit nga wala doo jullit n'est pas musulman ah doo musulman téye homme wala téye femme ah sa kori naa yow jigéen mais pourquoi nga bëgg kii jigéen ba rew doo góor jigéen la mhm. góor jigéen tu mhm. as deux sexes ou bien mhm. jinne bu am deux sexes la waaw ah, moo tax mu ne mu dugg kii tu as ah, ah. deux sexes kon kii la ñuy wax góor jigéen mais kii du pour yow ah léegi nag nga moom di ko bàyyi après nag boo ko bàyyi fooy nekk mën ngay nekkaat tàccu leen loolu waay saburi naa waaw ah, macha kon dama lay tuubal ah ma tuubal la tuddee xool ko ma la tuddee après ma bàyyi la ba ma yeewi la dugg ci yow seg tigre toi tey tigre jinne bi tigre la seg la macha allah jinne seg ñoo fi yor bari jinne ok waxal ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah أن محمد رسول الله عبده ورسوله عبده ورسوله بس نكتاي دونا دونا دونا دوغنا دوغنا ci diine lislaam ci diine lislaam kon tàccu leen sabu leen gaay tuuba jinne du caaxaan de ku yàlla yónni moo mën a tuubal jinne la yàlla yónni moo tuubal jinne dañoo dëgër bopp waaw kon dama koy tuubal maanaam dugal ko ci diine lislaam sabrina ah waaw léegi nag maay xool tur ma neex ma tuddee ko waaw waaw sabrina sabrina ma xool sama benn jigéen ma tuddee ko ala moo kulu allahu sama alfahari ke alfahari batin alfahari ke alfahari batin kurkin na sokin na uti koroyan na nabiyan na nabiyan na direte sokin so sokin kisi kasa kwai kasa sasi sama wawa kwallon malamin salamu waaw waaw Thierno Moule gi nii de gis nga maa ngi ci liggéey bi gis jinne yi ma jàppee ak yooyu boo leen ma woowee jotoo leen ma rek xamal ne maa ngi nii gis ni ma mel nii gis nga ñu ngi nii nag kii yow laa ko bëgg a tuddee kii jinne bii jinne bu dugg bii xoolal nu mu lay xoolee xoolal nu mu lay xoolee jinne bi kumba xool <laughs> yow laa ko bëgg a tuddee Mariama tudd tuddee naa ko jinne yow laa bëgg a tuddee kii ah waaw kon léegi yow kii laa la bëgg a tuddee soxna si gannaaw yow jigéen nga kii laa la bëgg a tuddee kumba xaaral ma dem gis ko kii kii laa la bëgg a tuddee kumba gis nga ko ah, ah, ah xool ko gis nga gis kumba moo am fit eh. mu ne eh, ko nanga def kumba moo sa turandoo wuyu ko yow laa ko bëgg a tudde kon xaaral kon bés ni ki tey eh. tuddee naa la Kumba Jaañ nest Kumba Jaañ moom moom la Kumba tigir waaw. waaw tuddee naa la kii lui là c'est Koumba Diagne toi c'est Koumba Diagne Koumba Diagne jinne bi tuddee naa ko Koumba Diagne Koumba Diagne noo tudd noo tudd noo tudd Koumba Diagne noo tudd Koumba Diagne What's your name? <laughs> Your minute. No, do, do, do, do, do. kon tuddee naa la jëlee def ko ni kuku Kumba Diagne <laughs> waaw waaw parce que dama leen gis yéen a ngi liggéey yu am doole ci groupe bi moo tax waaw waaw gis nga liggéey lu baax am lu baax waaw jërëjëf ndeysaan waaw waaw su turandoo ngi noonu Kumba Jaañ jinne bi waaw waaw Kumba Jaañ boole naa la sa turandoo nag nga koy aar di ko sàmm dégg nga nga koy dimbali nga jàppale ko mu am alaaji bu baax jëkkër ju baax ah mu am jëkkër ju baax am xaalis bu baax Kumba gis nga waaw moo ngi moo ngi ci association ci mu ne Kumba tàllal loxo mu ñaanal la Kumba taalal loxo mu ñaanal la waaw moo ngi ci association Thierno Moule Famille waaw ñaanal la Kumba ñaanal Kumba jinne bàyyi noonu taalal loxo ñaanal ñaanal ko jinne ñaanal ko ndeysaan yal na yàlla nga am jëkkër bu baax dégg nga ne ko ne ko euh, association Thierno Moule Famille ci kaw ci kanam waxal loolu. association Thierno Moule Famille. famille ci kaw ci kanam. ci kaw ci kanam. waaw waaw. tàcc leen loolu waay. kon Kumba ndeysaan am lu rëy. ci états ki ku liggéey baax dama defal lu mel nii tuddee li ci waaw waaw maa ngi lay ñaanal gis nga tey ni ma mel maa ngi tàkk jaati yi gis nga macha allah gis nga néeg bi gis nga gaa yi kooku kàtta yi. ndeysaan kon soxna Kumba jaajëf jiitu la. këyisa bulu yaa saaya wala te àll si gidi. alfa yi jël alfa yi baat. Koysun da koydu. Kola yanda. Nabi yanda. Nabi dure. Dure te. Sojina. Sojina. Kimsi kas. Koy kas. Samsu. Severusi. Samsu. Severusi. Samsu. Severusi. Haber mi? Nögele içinde. Haber mi? Nögele. Yevlen içinde. Tekele içinde. Taçöler yolu. Taçöler yolu. Alô? waaw maa ngi nii di jàpp jënd maa ngi jàpp jënd bismillah maa ngi nii ci kër gi. kumba maa ngi lay bàyyi nekk ci waar bi. jaajëf maa. waaw waaw liggéey rek. dama leen di gën a encouragé rek yéen ñëpp ak ñi fi nekk ñëpp laa leen tuddee jëm bi gis nga kii ngi États-Unis di ko liggéeyal ndeysaan di liggéey association Thierno Moule Fadeli moom ak suñu président Mariama Diallo ak Adama Diallo kii mooy Kumba Diagne ndeysaan waaw waaw waaw Adama tamit waaw noonu la ndeysaan merci ah ok ndeysaan gis nga doomam bi moo moo moo jaawale dugal affaire yi ndeysaan waaw kon bi moo jaawale rek ngeen comprendre jaajëf nuyu nañ la thank you very much Ouma thank you yes jaajëf ah how are you fine good good how are you yes yes okay thank you very yes jaajëf thank you merci Kumba jaajëf ok jaajëf Soufiane merci beaucoup. waaw noonu la noonu la yéen seen liggéey moo rafet yéen a ngi génn ci état seen i dem wax ak gars yi pour ñu di leen saa saa di leen kii ci Thierno Moule kon yéen amoo amoo seen fay yéen a ngi génn di leen dëkk dëkk biir Amérique di di di di taxawal Thierno Moule ci biir états am ngeen yitte ngeen bàyyi seen yitte taal seen di dox ay kilomètres kon yéen foog ma delloo leen ah. waaw waaw lii du ndaw la nag lii du ndaw la boole naa leen ci début dina la jàppale ci kattan borom Kumba jaajëf merci ok thank you waaw ñii dañuy dañuy lañ nekk dañuy génn taal seen oto ay kilomètres di ma liggéeyal di dem wax ak nit ñi pour ñu bokk ci station bi famille Thierno moom yaa ngi dégg di créer ay ay ay carte di ubbi compte banque def ci sama tur lu ñu liggéey def ko sama tur xam nga ne kon ñii dañ leen war a jaajëfal. dañ leen war a ñaanal. waaw waaw kon moo ngi noonu lépp nag liggéeyal yàlla ak yonent bi lu ñu ma jox ci doomu aadama yi laa koy delloo. ndax man maa ngi sant yàlla. alhamdulilah rabbil alamin waaw kon moo ngi noonu Kumba Jaañ ndeysaan jiin na Kumba Jaañ yaa ngi nii na Amérique Kumba Jaañ Kumba Jaañ tàccu leen Amerika Kumba Jaay Amerika jiir ananga mino felis Kumba Jaay Amerika jiir Kumba Jaay Amerika Amerika jiir waaw bindal fi Kumba Jaay Amerika jiir Kumba Jaay Amerika gordirna sojenna uuldi kono yalla nabi yalla nabi durete sojinna so sojinna kiisi kaasa koye kaasi samsi semanuusi samsi semanuusi samsi semanuusi jógal balaa ñu lay taxal kaabi damay jaxase gaay wala nga lay taxaw waaw man taxaw moom seetaan naa la. kiti saa yaa. xooloo yàlla sa. wala te allah est ce que. kul allah. kul allah.

Kisa bolo ya saya. Wala mo na ng sige ni. Hulu ɗefoni batide kurdina suujina uuɗi koro yanna nabi yanna nabi ɗure ɗurete suujina suusuujina kiisi gasa koye kaasi saamse sama muusi saamse sama muusi jinna siki komati tappal yawla kan yawla kan ndax mu gën a doy. sens. mais est-ce que dina am lu mu sol après. sens. sama So, so, so, he's got, going Diagne jinne baa ngi téye jinne bu mu tuddee Kumba Diagne jinne américain bi mu ngi ko téye Kumba Diagne Kumba Diagne jinne jinne Kumba Diagne Kumba Diagne Kumba Diagne Kumba Diagne jinne Kumba Diagne Kumba Diagne Kumba Diagne jinne jinne Kumba Diagne Kumba Diagne Kumba Diagne jinne Kumba Diagne Kumba Diagne Hamsi Sansi Haɓɓeɓe nange ɗum jiɗi atake en procé jiɗi atake en procé jiɗi dix mille milliard jiɗi armen Avancez, avancez. Attrapez, Jimmy. Attrapez, Jimmy. Attrapez, Jimmy. Kiti saya. Kolaya saya. Ulu da Allah sekinan da Allah. Şerban Resul. Sekin. Ha ha ha. Dolar. say kii yow la kan an hombo hey an hombo an ka holu yow lan la wax lan la moo fontoo yow lan la guddi la ñu ñu jël ci garab aujourd'hui c'est la journée des médicaments réponds-moi c'est qui yow la kan ka hombo an ka holu aw an ka holu aw ka holu her haal ka honum ka jinne ka gorko walla ka debbo ka gorko ha jinne ɓi gorola duuɓi jiro aɗa jokki suka debbo o ñaata adde uh, ani topp xale mu jigéen gila mo dañi duuɓi jeetati gila mo dañi duuɓi jeetati han nee na ba mu amee juróom duubi jeetat ba mu amee juróom-ñaari at moo ko topp lu tax nga topp koo di jëkkulaam dama di nee na dafa rafet xaal wolof waxal wolof ana yi dimu waxal wolof koo di yi dama dafa dafa set xol moo tax nga topp ko pour nga di jëkkulaam joni noon mi yiɗi accamo hannde a accatmo walla accatamo tan koye mbawi walla ɗo ko mbawi eyyi eh? nga accamo kay nga nga mbawi ko nga mbawi ko kay laala o a accatmo walla accatamo accatmo a accatmo kay tan koye mbawi nenama hammu daf koye mbawi lu tax ɗo ko mbawi walla mi waɗama ko bonni tan koye mbawi walla mo dumala acat wala acataam eh? acat bés ni ki suba suba acat debbo walla acataam an no mbeteɗa no tudd mi annda inndaande jinne bi nee na xamul turam waaw kon dinaa xool ku ma koy tudde acat debbo wala acataam ma jooni debbo debbo o amoon ak almuudam xanaa ada ligganoo kam nga nekk sama taaliba di ma liggéeyal. non maanaam du muy indi du loolu laa bëgg. loolu force nga koy def. mu neex la mu naqari la te force. nee na wax waaw rek moom dina ma liggéeyal. a d'accord an aɗa wawi haade mun ga heeha an ka ndiyam ka heehi nee na moom ndox la moom ngelaw la kaa jaan mais jaan serpent serpent kaa mboddi ah aan hombo haata mais aan kaa hombo kaa gorko la kaa debbo nee na góor la xamul turam kon wi ashhadu an laa ilaha illa allah واشهد ان محمد رسول الله عبده ورسوله kon bés ni ki tuub naa bi tuub naa dugg naa ci diine lislaam kon tuubal nañ jële bi duggal nañ ko ci diine lislaam ana ko mu àndal ana ko magal bi baabi waaw baay si hmm. dégg nga loolu hmm. nee na tuub na dugg na ci diine lislaam waaw lislaam jooni mi ndaara hombo mi jiɗi firtam o anani ok o wi o suka debbo a wona wopat suka debbo a wopat so a woppima omo dañ joom gal oɗo daña so a woppima o dañ joom gal anani ko wi ko a woppatmo tout tranquillement aɗa andi mawnu makko gorko walla anda eyi mawni gorko aɗa andi an ah, no mbiyetata aɗa andi amadou meteɗo amadou bar an a ala affaire amadou a ala affaire amadou Eh. ala affaire ama Kumba Jaay jinna ala affaire ama eh, Kumba Jaay eh. ana ala affaire ama wala ana ala affaire ama amol aha jinna o wimi ala affaire amadou mbara jokkani amadou annakadi aɗa jokki waɗi jokkuɗo amadou ay ɗum min jinno andude wona anani o wi kanko bonnanimo onon fof joni noon heddiɓe mi anda wawi amadou noon woppumo anani walla woppuɓe kamɓe fof heddiɓe fof woppuɓe anani ha heddiɓe ko woppuɓe tout tranquillement acca ko bonnantaɓe ko pour ɓe wawande réussir abondé maɓɓe anani ha Amadou Nana aywa moo gis jooni jooni mi waaw ma xool ku ma koy tudde góor la ko ko quoi koy tuddee suñu caméraman bi ci kër gi Pape Sidi Ah, waaw jinne bi ñu ngi koy tuddee Pape Sy cameraman jinne ah, waaw ah dégg naa Lamine Samba ay temps daan na wax xaw ma kan jinne caméra xam naa a jinne ah, waaw la kàcc leen ba jinne caméra Lamine Samba moo nekk moo nekk nii mooy jinne caméra vrai uh-huh. waaw kon tuddee leen Pape Sidi jinne caméraman oh tàcc na loolu waay Pape Sidi Pape Sidi am na ci kon yow tuutee naa la Pape jinne yi Pape Sidi caméraman bés ni ki jinne bi tuddee naa ko Pape Sidi caméraman caméraman jinne yi kuy filmé jinne kon Pape Sidi laa la tuddee nan nga tudd no mbeeteɗaa mi weltiriima pape si no mbeeteɗaa haal dow mi nana no mbeeteɗaa no mbeeteɗaa haal dow do haal cika o haal dow kon defe naa ne taccuɗo Sidi suma suma taalibe bi Pape Sidi cameraman Pape Sidi cameraman Pape Sidi cin Pape Sidi Pape Sidi cin Pape Sidi cameraman Pape Sidi Pape Sidi cin cin yéen cin Pape Sidi cameraman Pape Sidi cin yéen cin Pape Sidi Pape Sidi cameraman génn ci tamit Pape Sidi waxuma leen Pape Sidi cameraman de Pape Sidi cameraman cin laa wax Pape Sidi turandoo Pape Sidi laa wax jënd ñu Pape Sidi n'est-ce pas Pape Sidi Pape Sidi cameraman yàgg Pape Sidi jën jën Pape Sidi Pape Sidi cameraman génnal ci Pape Sidi génnal ci xale bu jigéen génnal ci jigéen Pape Sidi Pape Sidi cameraman ci yàgg Pape Sidi génnal ci yàgg Pape Sidi Pape Sidi Pape Sidi cameraman jën yàgg génnal ci génnal ci xale bu jigéen génnal ci génnal ci kenn ci moom Pape Sidi Pape Sidi cameraman Pape Sidi cameraman jiitu yow yow yow yow yow yow génn ci moom jiitu génn ci moom Pape Sidi cameraman yow yow yow Pape Sidi cameraman génn génnal ci xale bu jigéen génnal ci xale bu jigéen yaatu yaatu fayro sagara fayro sagara fayro sagara fayro sagara espagnol sagara fayra sagara fayra sagara fayra fayra fayra fayra fayra sagalo fayra sagara fayra fayra fayra fayra pap siji sagalo fayra fayra fayra pap siji sagalo fayra sagalo fayra pap siji sagalo fayra jin jin sagalo fayra sagalo fayra jin pap siji sagaloo sagaloo tooytaan ci ci ci tàccu leen loolu waaye. tàccu leen loolu waaye. wala général ku leen ci ne. waaw waaw. kon moo ngi noonu. Pape Sidi caméraman bi moom laa tuddee jinne bi. nee naa leen yéen ñëpp dinaa kuy góorgóorlu rek dinaa la tuddee jinne. kenn du ma obligé pour mu tuddee la jinne. boo ma jàppee jënd bi moom laa xalaat laa war a tuddee jënd bi di wër-wëral ba ñëw si moom waaw a tuddee jënd bi waaw waaw kon tuddee naa Pape Sidi cameraman jinne Pape Saliou Gueye doo jinne cameraman jinne baa ngi nii. Pape Sidi jinne. <laughs> maanaam filmé na jinne ba ñu tuddee ko jinne ndeysaan kon moo ngi noonu. du Pape na Bey ah. noonu la kay waaw ndax koo jinne caméraman de Pape Sidi mooy jinne caméraman ndax moom filmé na ay jinne ba ñu tuddee ko jinne yow na da nga war a filmé yow jinne ba ñu tuddee ko jinne. yow nag dinañ lijjanti ah? dinañ lijjanti li ñu yor. mu ne dinañ li ñu yor. waaw jox la nga ngénte. nga ne yéen de ah. waaw ah yaa ko wax de. dinañ lijjanti li ñu yor bu ma génnee léegi. waaw dinañ lijjanti li ñu yor. waaw dinañ lijjanti waaw waaw kon kooku noonu tuddee nañ ko Pape Sidi mooy filmé jinne yi may jàpp fii tout le di ci sonn moom it mu teel ba lii rek laa ko mën a fayee jàpp jinne tuddee ko ndax jinne du ko ne lañ koy tuddee. waaw waaw kon liggéey booy def dañ ciy góorgóorlu ànd ak yàlla ak yeneen bi gëm li nga nekkee góorgóorlu ci rek lu ne mën na la ci fekk. jënd Pape Sidi Pape Sidi Pape Sidi jënd Pape Sidi caméraman génnal ci kàlla Pape Sidi jënd ci xale bu jigéen bi jënd jënd jënd Pape Sidi laa wax la waxuma nit de Pape Sidi jënd maanaam jinne bi dama ko tuddee Pape Sidi mais waxuma Pape Sidi nit mu génn ci xale bu jigéen bi dama ne Pape Sidi jinne génnal ci xale bu jigéen bi loolu dafa jar a leeral waaw parce que damay jàpp jinne tuddee ko nit su ko defee euh, bu ma maanaam bu may liggéeyloo jinne bi tur nit ki mooy ñëw loolu yëpp ku ñu tuddee jinne loolu lu baax la jinne du ko ne leen koy tuddee kon tuddee nañ Pape Sidi jinne Pape Sidi Djinné Pape Sidi Djinné génnal ci xalifa bu jigéen bi yàlla jinna foyro sagalo foyro sagala foyro jinna yàlla jinna génnal ci xalifa bu jigéen génnal ci jinna génnal ci moom génnal ci jinna jinna jinna jinna génnal ci moom Pape Sidi Djinné jinna jinna yàlla génnal ci xalifa bu jigéen bi génnal ci xalifa bu jigéen bi yàlla yàlla yàlla yàlla génn ci jéem jéem sagala fooyro sagala fooyro sagala fooyro sagala fooyro sagala fooyro jéem sagala fooyro sagala fooyro sagala fooyro yàlla yàlla yàlla ma ko xaalaama yàlla yàlla ma ko jéem Pape Sidi jéem yàlla yàlla Pape Sidi Pape Sidi génnal ci xale bu jigéen Pape Sidi génn génn yawtu yawtu génn sagala foyro sagala foyro sagala foyro sagala foyro génn génn génn génn sagala foyro sagala foyro sagala foyro génn génn génn génn génn génn Pape Sidi génn Pape Sidi génn génn ci xale bu jigéen yawtu yawtu yawtu génn ci xale bu jigéen génn ci xale bu jigéen génn sagala foyro sagala foyro sagala foyro tàccu leen loolu tàccu leen loolu waaye alhamdulilah rabbil alamin yàlla buural màgg yàlla buur mooy bu màgg li yëpp mayu yàlla la li yëpp dañ ciy sant yàlla yonente bi ndax yàlla moo ñu jagleel nii du suñu mën-mën du suñu kattan waaw ñun duñu dara ay jaamu xeebu lañu ci kanamu suñu borom gën a tuuti ci jaam ñi gën a oyof ci jaam ñi ci suñu kanamu borom kon lépp lu ñu yàlla jagleel dañuy gën a dellu samp suñu ñaari tànk suñu ñaari góom suñu ñaari loxo jéppalu suñu kanamu borom gën a xeebu ci kanamam gën ko sant ngir li mu ñu defal duñ ci gis suñu bopp duñu ci naagu duñu ci daagu ndax ku naagu daagu ku daagu ñu romp la ñun nag duñu naagu duñu daagu waaw dañuy sant lépp yàlla kon yàlla moo ñu jagleel ñuy jàpp ay jinne kooku dañ koy sante suñu borom du suñu mën-mën du suñu kàttan du suñu doole kenn ku ne xam na ne jinne yàlla daf ko bindee ci safara jinne kàttan bi ko yàlla jox ak doole ku yàlla yoon yónni rek moo mën a jàpp moo mën a tër ay jinne moo mën a yeew ay jinne waaye du doole du kàttan ndax bu dee doole ak kartan yàlla may na ko jinne bu dee xam-xam baatin yàlla may na ko jinne mais yàlla bu la yebalee may la kàttan ak doole ma ne mbër mbër bër bu ànd ak yàlla ku ko songu rek nga daal kon maa ngi sant yàlla suñu borom bu baax man Thierno Moule Sow euh, xalif général kullu médecin traditionnel man Thierno Moule suñ surtout Soundiata Keita man Thierno Moule Sow le roi du Mandi lépp yàlla ak yonente bi la ndax li may def ni du hasard loxo yàlla de ngeen barki Demba Ndiaye jinne bi ma jàpp fii mu ne ma euh, ci huitième esa eh, ci huitième asamaan maanaam saxaaba yi ñoo ngi waxtaan ñoo ngi wax si tur foofu ñu ne ma yow maanaam saxaaba yi ñoo la duy ñoo la duy sol kon kooku du yàlla la li may def ni du hasard yàlla rek la yàlla kese la nag waaw waaw di nga gis ñu sol yu xonk yeeg yooyu mbirum jinne la nag waaw ceeb moom dana ànd ak diwlin dana ànd ak tamaate dana ànd ak maseeg yooyu yii mbirum jinne la bagage su jinne yi la teewul duñu ay féticheur ñun ay jullit lañu jinne bu ñu jàpp ñu tuubal ko dugal ko ci diine lislaam waaye nag Sénégal moom bu ñu gisee nga yor lu xonk ak yooyu rek ak ñuul ak yooyu ñu ne kii moom féticheur la da ngeen di ràññee féticheurs yi ñu dul féticheurs yi ñuy fét yi ñoom ay ay yéefar lañu gëmuñu yàlla gëmuñu yónente bi ñun nag gëm nañ yàlla gëm nañ yónente bi waaw comme nañ suñu sëriñ gëm nañ suñu maam suñu jatagaay kon ñun ak féticheurs yi bokkul ay jaamu yàlla lañ ay chef de religion la man mi nga gis ni muhaddam Cheikh Ibrahim la su ma lijaasa moom ngi fi lijaasa itlaax laa yor man mun naa seexal nit mu uti taalibe mu yor ay taalibe kon macha allah sant yàlla. saa ci leen loolu waaw. Voilà. alpha Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, an hombo gawla ka andruge ɓoore ga ala pam sidi camaraman jine pam sidi alam jamna an hombo yawla ka denga wolof ah, a wolof no fewi ko watta ɗo ɗo e defi min garnoɗa ƴeewta dégg ngeen mu ne moom la Rougui Boli noonu noonu la tudd ah. Rougui Boli la tudd comme ana Pape Sidi na ci néeg ah, ah, ah. bi ah. tàcc na loolu bu ngi ci biir kon bindal foofu Pape Sidi cameraman Pape Sidi. bindal waaw suba léegi. Eh. jooni aan. Eh. ce que xam nga ko. Ah, xam naa ko. suñu borom ma mañ xam naa ko. waaw waaw ndeysaan gis ngeen jinne bu ma tuddee Fatou Ndiaye États-Unis mu ngi ñëw tuub jébbalu sama xalaat lii mayum yàlla la Thierno Moule est-ce que xam nga loolu suñu borom defal est-ce que ah, suñu borom man pour pour man xam nga ko. xam naa ko kay xam nga man <laughs> yii xew ci néeg bi yëpp waxoon nga ma ko avant may liggéey ak yow. xew ci néeg yëpp. waxoon nga ko avant may liggéey yow. fa ma nekkoon di liggéey daan ñëw fi di la filmer dama fa daan wax li ma daan wax guddi gi dañ daan wax whatsapp ay une heure de temps deux heures temps nga am yow ma daan wax ma daan wax ko daan wax foofu ñu naan da dof wala sëñ bi dalaa kidnappé xaw ma nu mu demee noonu mais yëpp xam wax na nga ma ko. defe naa a leer na. waaw loolu dëgg la yàgg. dëgg la te maa ngi bëgg a yàgg ci liggéey bi. ndeysaan gis ngeen ci ne moo ngi nii Fatou kii euh, naka la Kumba Diagne États-Unis su ma jigéen boobu laa ko moo ngi taxawal association bi moom ak Mariama présidente ak Kumba euh, ak Adama Diallo ñoom laa tuddee jënde bi Pape Sidi aussi président association bi ak ñoom daawar ñëpp ñëpp ku si def liggéey bu baax rek ma tuddee ci doxal liñ la sant yaa ngi ku ci doxal xaw ma ci yow dara c'est léegi nag yow euh, dama génn ci xale bu jigéen bi nànk nga ñëw liggéey man ñu bàyyi kii ci jàmm ak sant n'est-ce pas on yow moom dangaa ñëw rek jébbal mun nga xeex da ngay xeex yow bu baax nan ngay xeexee nan ak nan ak nan baax mun nga dóor noonu mun nga dóoree noonu ah nan ngay dóoree ah kii élément bu baax la ñu ne bii dina dina ma arrange. tàccu leen loolu waay. noonu du ma rek noonu Thierno Moule Sow pas calculer pas hésiter du ma nga noonu Thierno Moule déraper du ma rek du ma rek euh, fan su club Thierno Moule ñu bëgg Thierno Moule sécurité garder rek mais defe naa Thierno Moule du ma rek intérêt Thierno Moule du ma rek trompeur yi naa fekk du ma rek ñu baax aar yeeg sécurité leer na tàcc leen defe ah, naa am dara tous rafet yi noonu ñu baax ñi moom ñu ma bëgg ñu bëggal c'est bon bon ñi moom nañ dem seen dégg ah? kon moom kon yow sas naa la kër gi ngay kër gi di loxati noonu yeeg defe naa yeeg yëwkat yeeg wàcc rek ah dénk naa la mission boobu alal la mu ñëw yow sëg gudd fan ak wér dégg kon kon Kumba Jaay génnal ci xale bu jigéen bi Kumba Jaay Kumba Jaay Kumba Jaay ci Kumba Jaay Kumba Jaay Kumba Jaay Kumba Jaay ci Kumba Jaay Kumba Jaay Kumba Jaay Kumba Jaay Kumba Jaay ci Kumba Jaay Kumba Jaay Kumba Jaay Kumba Jaay Kumba Jaay Kumba Jaay Kumba Jaay Kumba Jaay Kumba Jaay America Kumba Jaay America Kumba Jaay Kumba Jaay Kumba Jaay Kumba Jaay Kumba Jaay America America go onak go xawma demal man lañ ko wax ci anglais waaw go outside am na beneen go outside moom mu tax sorti non anglais laa wax Sorti, sorti, sorti, go side, go side, go side, go side, go side, go side. Jim, Kumba Jaya, Kumba Jaya, Kumba Jaya Jim, Kumba Jaya Jim, America, Kumba Jaya Jim, America, America, America, Kumba Jaya Jim, America, America, Kumba Jaya, Kumba Jaya Jim, Jim, Jim. Ah, ah. ini lebih kaya karena cuma sama noni. Kumba Jaya, Kumba Jaya, Kumba Jaya Jim, America, Kumba Jaya, America. Nana mau saya jalan, Kumba jaay kumba jaay kumba jaay jinne bu am doole la gis nga nu muy def kumba jaay kumba jaay kumba jaay kumba jaay kumba jaay kumba jaay kumba jaay kumba jaay America America kumba jaay America America America jiji kumba jaay kumba jaay kumba jaay America kumba jaay kumba jaay génn ci àll bi Kumba Jaay génn ci xale Kumba Jaay Kumba Jaay Kumba Jaay Go Saay Go Saay Kumba Jaay Go Saay génn ci xale génn ci xale kiti saaya Kumba Jaay gis ngeen ndeysaan Kumba Jaay moo ngi noonu jinne la bi nga xamante ne dama ko tuddee suma benn jigéen bu nekk Amérique ndeysaan di góorgóorlu ci association Thierno Moule Famille def liggéey bu rafet moo tax mu tuddee leen jinne doon sama taalibe doon ay nit ñu baax ñu yàlla baaxal waaw ñu ngi doxal liggéey bi Kumba Njaay jina Kumba Njaay Kumba Njaay Kumba Njaay Kumba Njaay Kumba Njaay Kumba Njaay Kumba Njaay Kumba Njaay jina Kumba Njaay Kumba Njaay Kumba Njaay jina jina yàlla yàlla génnal ci xale bu jigéen génnal ci xale bu jigéen génnal ci xale bu jigéen génnal ci xale bu jigéen génnal ci xale bu jigéen génnal ci moom génnal génnal yow yow taalibe nga génnal ci moom génnal ci moom yaatu yaatu génnal ci moom xoolal nga ni mu def tànki xam nga ne kii sekk la yaatu yaatu yaatu bii mooy ñaari jinne bi ma jàpp ci xale bu jigéen bi ñaari jinne comme ngeen xam loolu léeg-léeg dañuy gis kenn ki ne kii kii lañ gisoon ñu jàpp ci moom jinne waaw bu nekk jinne yaa ngi dugg nag da ngay génnee rek bi mooy ñaari jinne yi ma jàpp ci moom Kumba Jaay Kumba Jaay Kumba Jaay Kumba Jaay jënd yaatu Kumba Jaay Kumba Jaay Kumba Jaay jënd mooy yow am mm-hmm. ah, ah, ah, ana Kumba Jaay jinne ana mu Ah, Adja, qu'est-ce que tu fais ici Ah. Hein? Ah, hein? Ah, Maman Oui, je Maman Viens, viens. Maman Viens, viens. Viens, ça, là, là. Maman Maman Maman Maman Tàccu leen loolu waaye booy ñaari jinne génne naa ko ci moom ñaari jinne soxna si kaay da ñëw ndeysaan ndeysaan ndeysaan bi mooy ñaari jinne waaw ñaari jinne gis ngeen loolu may leen ko ngeen si may leen soxna si mu ñëw ndeysaan waaw soxna si ah loolu laa la waxoon sànq waaw ndeysaan kenn du Thierno Moulay tàcc leen ki wax mooy ndaanaan waaye ndaanaan waaw sant yàlla yàgg fi te wér jërëjëf mm. macha allah jërëjëf jërëjëf merci beaucoup merci merci merci merci beaucoup Adja ndeysaan ndeysaan gis ngeen jigéen bu baax ànd ak yaayam fan yee jàpp naa benn jinne ci moom jinne bi moom ko duggee France ci école bi muy jàngee ci wetu conteneur yi boobu noonu doon defar école bi gis nga jinne bi ko duggaat barki démb la ko duggee fii ci ci ci xew euh, yaayam bu mag doomam la doon waaye jinne bi nee na dafa rafet mu dugg ko jinne bi nag tiikër la yàlla def na tuubal nañ ko nekk na suñu taalibe kon génne nañ ci moom ñaari jinne ñaari jinne waaw kon nag saa su jinne duggaatee rek génne ñu gis ngeen jinne yi dañuy dugg nit ñi kon bu ñu gisee benn vidéo ñu génnee ci kii benn jinne ñu gisaat ko ñu ne kii nii waaw jinne yi ñooy dugg rek jinne yi dañoo bari bu ñu gisee nit mu arrangé la rek ñu ne la ca wax mm-hmm. waaw kon lan ngeen wax ci loolu lan ngeen wax ci lii tey lan ngeen wax. sant yàlla waaw sant a baax. jii nii li nga gis fii kër Thierno Moulay Sow euh, lan la la def. amul sax moo pour trouver. Hmm. doo trouver sax moo. ndax man damaa sonnoon trop trop trop trop trop. Hmm. sama doom yi damaa sonn ci moom. huit ngi nii maa ngi daw ku nekk yóbbu naa ko fa. sans benn dama ku ak moom. moo hmm. gis mu ne dama. kii gannaaw yàlla ko yonent bi moom. macha allah du nelaw guddi du hmm. sama doom yu góor yi tamit sonn. papam sonn. lu nekk daj nañ ko ci moom. Mm-hmm. léegi nag mu ñëw fii. nga mm-hmm. ñëwee fii keroog muy lundi. ñu ñëw nekkoon ci moom ndax xale bi daan jàmbat dënn bi tout le a dee mm-hmm. rek gis imagine sa bopp bi la tiim naa la damaa bëgg a dee. mu nekk lu métti lool waaye ma gëm yàlla rek. waaye dama doon ñaan ci yàlla bu ma sama mag bi wanee bi ma wanee vidéo yi. dama doon ñaan ci yàlla di julli tout le temps yàlla maa ngi lay ñaan su fekkente ne. seen ministre mais dë dë dënn bi mu doon jàmbat est-ce que loolu. dañ na gisatuñ ci ngi jël garab yi comme ni ñu ko waxee woon. nee parce que ñu si bëri bu jinne dugaa des ñoom parce que dañu jëlul garab yi normalement. wala traitement bi jeexagul si leen jën a dugg mais bu xasee jeex moom jënatul ñëw. kii bu jël woon garab yi samedi man loolu laa wax sama dama ne kii bu jël woon garab yi kon du baax. Hmm. kon leneen la ñuy waxaat ndax dañoo xëy dimanche mu paralysé. parce que xew bi samedi la ñu xëy dimanche paralysé da dama ne garab bi bu ko yoru woon ci wetam. Hmm. dama ko doon topp génne photo bi ci saagam moom mu nekk photo bi ci saagam day sax fanaanoog moom. photo kan. photo Thierno Moulay. macha allah. fu mu jaaxle rek ma ne ko génneel te nga tudd turam sànq bi ma jaaxle ba jaaxle dama tay dama tari ayatul kursi par ñetti yoon ba pare tufli si boppam ñetti yoon cër na mu lay saw waaw macha allah muy dal moom affaire buy utiliser garab yi rek day jékki-jékki di sentir mel ni comme yaram bi dafay bàyyeeku ne dafay sentir apaisement hmm. ci moom ndax dëgg yàlla moom wax dëgg yàlla garab yi baax na trop kon pendant huit ans ngay daw dugg fu nekk tey jii nii sa xel dal xelam dal na moom bu baax a baax a baax a baax. macha allah yàlla teel mu ne kenn mënu kaa fay dañ koy wàcc ci loxo yàlla. macha allah yàlla xam ne moo am fay. Hmm. yàlla na na ko yàlla yàggal suñu kanam. amiin kii lu ñu moom rek je pense que hmm. lu waay am na ko ñu jàppale. macha ndax mu ngi jàppale doomu aadama ndax man mii yaay xam naa li ma daj ci sama doom. dëgg la papam ay frère am ñun ñëpp famille bi hmm. doom ji donc gannaaw yàlla ak yonent bi ñu ngi koy sant di ko gërëm. macha allah di wax na rek mën naa na wax sax gannaaw yàlla ak yonent bi dénk naa ko. macha allah dénk naa ko mën a dénk macha allah jërëjëf. jërëjëf joxal ma kii. kii sama grande sœur. Ah. Ah, ah. asalaamaaleykum moom ci jàppale lool moom tamit. alhamdulilah dawul benn yoon. Mm. ah ñun suñu xel dafa wax sax fu mu nekk nii. Mm. Euh, boo leen xamee ne ku jinne jàpp. pendant huit ans xale bi di jël ay médicament tubaab te dara dalu ko mu koy jël yu fort trop yoo xamante ne bii dañ koy dagg quatre parties pour nit mën ko naan partie benn bu ndaw rek la nit di naan pour nekk nit xale bi da siy naan mhm. tablette bi yëpp lay naan te du ko def dara dara xale bi bu ko affaire bi daan dikkal dañ koy yóbbu hopital France ñu koy piqûre ak di ko jox ay comprimé dikk ko muy wattaxa dal yaay bu su ma woowee ma ne ko ah metti na de waaye ñun ñaan yàlla rek yàlla baax na si kattanu yàlla parce que yaayam dafa baax daf ñu yor ñun soutenir ñu mm-hmm. moo tax yàlla jàppale ko tey yaayam tey bu bonoon si ñun parce que sëriñ Babacar Si tey jii doomam bii du jóg waaye yaayam baax na si ñun mm-hmm. respecté nit kii jullit piir la mm-hmm. waxtu julli du ko du ko raw jullit la tubaab lay sëyal de mais wallaay la azim jullit la julli bu jot ak jàppaam su ma woowee ni ma day si sonn naa ma ne ko ci kàttanu yàlla di nga ñëw senegal te di nga trouvé kiñ la booleel. Mhm. te dina faj xale bi. santal yàlla. Mhm. yàlla rek loo mu métti métti métti rek gëmal yàlla xam ne sa doom garab buñ ko mënta jox. piqûre buñ ko mënta pikiir lu luñ ko mënta def si àddina. di nga ñëw Sénégal te dina fajo ci kàttanu yàlla. bii paase nag mu nekk crise bu méttee méttee métti ba xale bi tëb na day tëb si miiru France yi. Mhm. pompier ñëw na. police ñëw na waaye ñu gëm yàlla rek gëm yàlla ba yaayam daf ñu defal sax surprise dañu defal dañu jékki-jékki rek ñëw une semaine deux semaines ñuy préparé xew bi mun a mën ndey si xew bi neex na loolu waaye nañ dem seeti Thierno hmm. keroog bi ñuy ñëw fii man dama toog fii jaaxle ak sama xew waaye dama bàyyi xew bi ñëw topp si yaayam hmm. Hmm. topp si fi lañ toog toog toog toog toog ba guddi ba guddi si la ñu rombee rek man sama tànk yi daf doon pat-pati la wax ma xam ne rek yàlla defar na lépp lépp lépp ñii ñaan yàlla suñu borom bi rek na mii fii yàlla tegal ñu ko fii yàlla na la fi yàlla bàyyi yàlla nga toog ba place bi nga bëgg am yàlla na ko yàlla may yàlla nga am fu yaatoo yaatoo yaatoo ndax nit boo xamante ne yàlla suñu borom bi moo la fi wàccee li nga naan doo tontu yow doo tontu man maa lay tontul ku am kuddu doo lakk te yow am nga say kudd doo lakk ceer na jërëjëf jërëjëf jërëjëf Euh, mu mel ni soxna Kéema yaay booy damaa dégg nga ni depuis mu ñëw fii ba léegi comprimé yi laalatu ko. laalatul comprimé. valise valise comprimé la daal laal. Hmm. am na boo xamante ne bii yaayam daf ma ne nëbbal comprimé yi. ma jël comprimé yi nëbb ko àndal. Hmm. moo koy wan ma fan la comprimé yi nekk xale bi dem jëli ko. ñëw naanandoo comprimé yëpp yëpp yëpp. yaayam tollu France woo ma ne ma hey ndis daw gaa xool comprimé ma daw xool xale bi ne ma j'ai tout pris. ma ne ko nga ne lan ndekete def na portable silencieux boo xam ne daf doon xaar pour heure deewam jot kon nga xam ne dëpp boobu yàgg na ah. yàlla suñu borom bi tettal nañu jox ñu ay tettal yu leer ba indi ñu si Thierno bay euh, Thierno fajal ñu ko Thierno ñu ngi lay wax encore une fois jërëjëf yow yàlla na la fi yàlla bàyyi bàyyi nañ la ak yàlla suñu borom ak sëriñ yi nga fi teg yëpp bàyyi nañ la ak sëriñ yi yàlla la yàlla aaral ko sama xarit lan nga lan nga me sens soulagée. Je sais même pas comment je peux remercier Tierno Moulaisso pour ce qu'il a fait pour moi jusqu'à aujourd'hui. Remercier ma mère ma famille, ma tata, mon tonton qui est venu tous les jours, on venait tous les jours ici pour partir de Molesso. Ils ont attendu avec moi, ils sont restés avec moi du début jusqu'à la fin. Ça fait ans que ça qui j'ai fait du mal, tous ceux qui j'ai blessés, parce que j'ai blessé beaucoup de gens. J'ai blessé beaucoup de gens. Et je demande pardon à tous ceux que j'ai blessés, à toute ma famille. Euh, je, je, je, sais même pas quoi dire. Je remercierai que le bon Dieu étire nos maisons pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Je remercie ma famille, ma famille pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. ma toute ma vie. Quand j'étais malade, je même pas la regarder dans les yeux. Je, la repoussais tout le temps. Quand j'étais malade, ma mère, je voulais même pas la voir. Pourtant, c'est celle la personne que j'aime le plus au monde, avec mon père, toute ma famille. Je sais même pas. jox ko musuwaar musuwaar. c'est toute ma vie. c'est toute ma vie. c'est toute ma vie. Oh. ndeysaan ndeysaan dégg nga nee na